dëgg daal ñëpp lañ ko mu indi ne képp xas da ko indi bët na bët bu bu jàkka ji ngeen futti ko doon te koo bu fekkee dara ci pénc bi kenn ku nekk seen bu ñu ko dawloo ci bu kenn seer na bu kenn defloo dara ngeen def da nga xam ne jullit teew teew benn ko benn waay dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama juróom-ñeent andi ñeenti seere wala wala ñu taw la mu ne bëgg sama soxna mu ne ko waaw moom kay faaw rek da ngaa xas a jullit indi seere wala ñu taw waaye daal génn daal yàlla yàlla àtte fi mu ko waxee rek alxuraan daal wàcc da nga ko yàlla sallallahu alayhi wasallam indi aaya bi aayu li xam mu gën a bon jëf si soxna boo amul ñu ay ay seere itam da nga gis ñeenti gin ne gis naa sama soxna may jàll su fekkente ne li mu wax dëgg yàlla yàlla rëbb yàlla wàcc ma soxna si dina gin ne day jëf ma loolu su fekkente ne daf ko def naa ko yàlla ma yàlla mere bu keroog day day tàqal seen diggante Euh, euh, kenn du du du euh, doom bi kenn du ko jox ko góor jur waaye seen diggante du ñooy sëy kii nag ki nga xam ne moo tas soxnaam la waaye su fekkoon jigéen jàpp la ko def faaw def kenn bu jàkk di ñu futti ko dóor ko juróom-ñett fukki yàlla doomu aadama ñu ne ko yàlla dara sëñ bi waxaam na moom mooy moom naa soo yàlla joxee bàq la sa bu xaatam bu tal suñu bidaa ñi nga xam ne dañuy tuumaal ñu góor jullit góor yi ak jullit jigéen yi seen diwul ci tey nag ah na nga xam ne tooñ nañ seen tooñ seen borom bokkul ci daara nga xam ne moom la ko yàlla dana taral képp ku jox da ngaa rey benn bakkan nga tay ko yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na bépp bokkul ci daara ji tam yàlla na képp ku ab jullit tay ko sawara ngay dem bu fekkee fi ngeen ko saw faaw kenn du mun na faa génne yàlla gën a def ne juróom-ñetti bakkaar yi gën a mag yoo gën a mag ba mu limee bokkaale rey nit tay ko njaaru ak ak ak tas ab jullit da ca teg njax jaf jafa yii moom bakkaar yi xam ne faw rek tuub waaye kenn mënu ko baal kenn kenn ko baal kenn sëriñ bi bu ngeen gisee jëmm ju mel nii nit ku mel nii yàlla tànn ko lii ñu ñëpp ñu nekk traité ji ci suuf xool leen ñun nit ñi nit ñi ñu euh, daaneel àq ba maanaam ñu ngi xas nit ñi ñu ngi leen di euh, saaga ñu ngi leen di doyadal ñu ngi leen di rey mbooleem yàlla ko bu kenn julit bu kenn nit nit da ko def nit da moom kenn ku nekk ñu war ngaa déplacé sa mën ngaa delluwaat ci sa ci sa euh, ci sa bopp xam ne yàlla nee na jiwu nit jiwu jullit ñi nga xam ne daal tiim sa mbokk mu faatu nga dagg ci yàpp ko di lakk yi lekk loolu ko faral mu loolee xam nag fexe fexe ba ñaar nit ñaari jullit seen diggante yàqu ci yàqu waral yooyu tamit salaasu nee na xet àjjana la du la nit seen tubaab rek ca joojo war na bés ne képp koo xam ne daa yàqu dërëm adduna bi ñu yàq sa dër wala yow ci yàq maanaam boo koo yàq adduna mu yàq sa àllaxira kon nañ fexe fexe ba bañ yàq adduna kenn boo ko yàq adduna nit fexe fexe bu ñu mën a jëflante nit ñi bokk na ci li nga xam ne dañ cee bàyyi xel ñun ñëpp xam ne bakkaar bu wàlle nit lu ay maam ak i mbokkam defoon ñoom ñoo ko yàlla ko seen borom baal waaye kenn waru ko denc di ko xase ay ay sëdam ak i doomam déedéet sa ay sëdam ak i doomam li ñuy def ci li ñu war a àtte te li tax itam suñu yoon nekk ci li suñu doon nekk rek mooy lu baax lay dimbanteeg ñoom ñor ko leen a wóolante fii jàmm yàlla ak it def digal bàyyi tere waaye am naa ñoom ñu ñu jub sëñ bi waa nee na fi ma set joxoon na bis bu leen lu ñu jub kenn bu leen xeeb kenn bu leen seet ay bi kenn kenn ku leen ñor xëy suba na say bu doon say bopp lay ndaxte kenn ku nekkat am nga ay nit ñi am nañ lan nit am nañu bët kon nag kenn ku nekkat war nga jëfandikoo sa bopp lay bopp yéen bi salaa salaam nee na kaaba gi li muy màgg màgg màgg na ngeen xam ne maanaam ab julit moo ko gën a màgg taxul leen ñaata jullit dañuy rey par bis ñaata jullit dañuy xas par bis ñun ñëpp ñëpp ñu ngi jëwanteeg ay rambaajanteeg yàqalanteeg te lépp yàlla moo leen yéen maa leen teral wuutu ngeen leen lu bëree bëri kon ni ngeen sàmm teral bi bii mbokk yi kon lañ leen teral suñu bopp mbokk ne bokk teral suñu bopp teral suñu bopp jullit mbokk ne teral suñu bopp teral teral ay doomu aadama doomu aadama dafa boppam la si war a teral doonte itam nag kooku sax mën naa am jullit dafa laaj mën gën a topp waaye nag bu ko fi àq doomu aadama bi sallallahu alayhi wa sallam yéen bi sallallahu alayhi wa sallam doon na jàngal jàngale doon jàngal am solo dafa nekk ci biir jàkka ji benn waay boo xam ne ñëw ci buntu jàkka ji commencé di tuur ndox di saw bi saxaaba yi jógee dem bokkoo doom mooy leen bàyyi leen ba mu tuur ndox bu noppi mu ne ko sama doom jàkka ji dañ tudd yàlla di jaamu yàlla di tuur ko di tuur kaay ndox soo liggéey ba ñëwee bëgg tudd tuur ndox nan nga ko wax nan nga ko wax bu ñu toll nii loxo bi tuur ndox foofu li ngeen di ko jàpp sallallahu alayhi wa sallam jàngal kii nit la te mën naa am ko gars yi songoon rek sax ñun ñu ko téyewaat dana tax ñu am feebar napp mën a jóge fa ñaar mooy itam mu kàllaf la te amul kenn koo xam ne am gis aw raw mu kàllaf xataa nit ki ci boppam boo ko traité bi nga tëral wër na xool aw raw waaye boo ko yëngati bi defaree loolu loolu dana yàlla yàlla mu yër baa nga ko doon waaye ñi nga ko góor bu la yër bi nga xam ne yàlla moom loolu war nañu am yërmaan bu doon suñu jàpp yii la kooku kenn lañu wax dañ ko xas ba xasaale aw askanam ñu ne lañ ma rek seen xas ngeen seen mbéy ñu ne ñoom naa gën a def ñu moom loolu yàlla bindee léegi gën a toon di yem ci moom dañuy àggaale ci xasaale bi juróom-ñaari maanoon ak askan di réewam dëkk ñëpp loolu nañ ko moytu bu baax a baax ki am problème mooy ci def lii te it am nañ ko mën a jubbante yi def ko ñu bëri bu ko defee fii man maa ñàkk xam loolu kooku ko defaa bu kenn tudd diine ji wax sa Allah askan Allah yi dafa la bokk rasula bokk julli kon bokk yi dañ bàyyi xel loolu baax a baax أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأوصل للمحاسن فقد خاب من حسن مولى ولا سمع تهده وفي تهد الدردة ولا كتب الهوى فقد دل من الهوى وأمر بالتهجد التوبة حتى بيقبل أجر الملقى واعلموا يا عباد الله أن نفسك الله ذكر وما تقدم لنفسك بفتد بهد الله واغسلوا طمانكم هاسا فإن استقام قام خيره وقصر الله وقصر السر وقصر أسا واستوى كل من بدل الدنيا وقبر الخائف لا حمل ولا حول ولا قوه الا بالله وسار الدين خيما كما قلنا هو اصل خير كثير الله في يوم تصف فدائم وتسقط في الجوارح بل هذا هو الله يوم يوم لا تملك نفس نفسا فالامر يوم يسر الله ربنا افتح بين خبرنا خبرنا بالحق الفاتحين ربنا ما خلصنا بس ما خلصنا ربنا نطلب بس ما خلصنا ربنا لا سمعنا منا لنا لنا أهل بلادكم فقامنا ربنا فرنا سنة بنا وكفر حنا سيئاتنا ربنا فرنا مدرنا وتدنا وحبنا وكلنا ربنا سبحانه ربنا وسلامنا بسلم وخذ بهذه كل مسلم أخي سلام